léegi bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci turu chef de village bi nga xay la laa représenté fii ak chef de quartier yi nekk ci quartier bi noo ngi leen di sant ci seenub teewaay ak seenub taxawaay ndax mbir mi day ñun yi ngeen ko tekki sunuy loxo lu dul ak leer ak leera nu ko gënal moo tax nu woote woon fii waxtaan tey jot nañ ci commune bi cent sacs de 100 grosses de sucre de 5 kg, huile 100 bidons de 5 litres commission bi ni le président bi mooy chef de village bi man ma ko représenté je ñom. Mam je Diop mo représenter délégué de quartier ima euh, Serigne Fall moy je suis ji Basirou Faye moy représentant des jeunes Fatou Mbaye di Njaay mo nekkal bàjjenu gox yi na de ni lañ tere sun commission neuf délégués de quartier mo fi né 100 sac lañ jot ci 100 sac yi bëgg nañ ko sédélé neuf personnes biñ ko calculer yi 11 sac la délégué ba doon di am mu dess sak. sac waxna naa leen ne leen niñ lu wax nañ ko jox ñi ko yello Seng kuton dajut carte xayira nañ ko jox ñi ko yelloo ñi ko yelloo ñan moo koy seet commission bi ndax ñu néew gi doole yaa ngi fi ñu mën seen kian ngi fi kenn sax du néew gi doole ndax yàlla rek am doole lol dal nun loolu lañ jot moom ngeen fekk ni ñuy waxtaanee jërë jëf ci taxawaay bi sant nanu bu baax a bah, ndax ki la sédd fàttewu la comme buñu jëlé téméré eh, téeméeri saaku jox ko ba xayra man may bàjjanu go xayra ma may président badjan go xayra yi ñu indi ko as gor du ni ñamuma su duñu suuruma ñamuma lay wax ki la sédd bu doon ne benn saakub ceeb sax limaale leena la ci lamuy def kon nak nun comme niko ko chef de village waxee xale yu bas waxé ko nonu non rek lañ ko rafa du nan ko bu baax di saare maire Abdou harka ci initiative bu am solo bi mu def ndax biñ ko dékkee dëkk bi wax dëgg yàlla mu xam ne kiris bi metti na waaye nag mu jël ci li nga xam ne moom la ko askan wi dénk ci dëkk bi mooy ne mu jàpp fa seen ci jàppale ñi nga xam ñooy néew doole yi jamono ji nag ne néew doole yaakaar naa ya dana yaatu ndax jamono ji moo ko laaj waaye li may wax rek lii ñu fi indi daal daf ko def ngir ak barkeelu ngir ñi nga xam ne jàpp nañ ne mënuñ seen bopp ñu jox leen ko man nag ci turu Serigne Fall mi nga xam ne mooy imaam xaaxira ci kàddoom lay waxe kon ci kàddu ak ci kàddu imaam yëpp rek mu mel ne yoon sa dafa am saxaaba dañoo mos a taaj benn ndab teg ci benn ndogu ndawal kenn ko di ko buux sa morom jàpp sa morom ko yelloo kon jàpp naa ne ceeb bii ñu fi joxe téeméer saako ceeb ci gox bu toll la xaayra kon nañ kenn ku ne jàpp ne kat ceeb bi yow sa morom ma nga dëkkal di néew doole moo gën a yittewoo ndax japp na ku ci ne japp nga bo amon sa man-man war nga jël ab dundu jox ka nga xane ne nga denante muy néew dole bu ko ñepp gisee non rek day yomb lol bi représenté ci commission bu xayra ci turu jeunesse bi ci turu conseil communal de la jeunesse ñu nek ño xam ñu ñu ñu représenté fi jeunesse bi ñu nak mam Mor tay ñu ñew fi ci xayra ñi waajal distribution bi wax deug yalla muy lu am solo lo xamne ne ne comme niko chef de village waxe foog na am sax ñun luñ ci yok lo xamne ne dañoo bëgg mu gën a am transparence comme niñ amee commission village dañ ko fexe ba amaat commission quartier parce que quartier bi dañoo bëgg eh, ressource bi nga xam ne ne moom lañ jëloon ci village bi dañ koy multiplier dem jëlaat ko ci quartier yi parce que ñiñ wax ñoo ñëpp ñu ngi ci biir quartier yi muy imaam nga fa délégué nga fa bàjjanu gox nga fa représentant jeune ña nga fa loolu nag lañ multiplier waat pour quartier bu nekk soo demee nga sa ressource humaine boobu nga xam ne ne ñoo tëye quartier bi ñu xool ñi nga xam ne ne ñoo ko yelloo ci quartier bi ñu jox leen ko nga xam ne du nekk délégué bi rek mooy tànn wala bàjjenu gox bi rek mooy tànn délégué bi day ànd commission boo xam ne ñooy tànn fukki nit ak benn yi nga xam ne ñi ngi ci biir quartier bi te yeyoo ko ñu jox leen ko parce que comme que séddale bi da dajul quartier bi yëpp te mënuñ koo teppi di ko def ay kilo te saag lañ ñu wax moo tax ñu defee ko noonu pour que ñu mu gën a am transparent ñi ngi sant ñëpp di gërëm